benni ci ci existence su DER di fàttali ni DER mooy li nga xamante chef de l'État de ko tëral ci walum PSE bi pour taxawu ñi nga xamanteni ah dañoo soxla am financement manam am liguey ci walum entrepreneuriat moy lo xamni tay ji dañ ko dañ dañ dañ koy rafetlu ndax en six années d'existence tay ji c'est plus de 260000 bénéficiaires yo xamanteni ni DER jàppale na len duñu nité sax légui bénéficiaire dañ naan initiative

ànd directeur général ou boss, mi nga xamante ni tey jii wax xol firndel li ñuy xamante def nako ak li nga war nañ ko ci suñu liggéey ci li nga

moy li ñuy wax inclusion financière bi inclusion sociale bi lool nak taamu nañ ci ñaari produit di nano crédit bi ak micro crédit bi bu wéso loolu tamit amna lo jot nañ ko fi partager li appui euh, toute petite moyenne entreprise yi loolu naka lañ koy défé ci structuration chaîne de valeur yi manam nga jël filière mo xam ci mbay mi la mo xam ci ci ci bi la mo xam ci ci lépp lu fépp foo xamante ni mën nga faa indi euh, euh, yokkute nga fexe ba créer fa emploi bu ñu jëlee sel bi mooy ñi nga xamante ni ñi ngi liggéey ci sel bi ña koy récolter ña koy jaay ña koy transformer loolu yëpp tey jii dañuy taxaw ci chaîne bi yëpp liggéey ko ba mu mat te tey jii loolu la ñu présenté di wax ni loolu yëpp nag li ko waral tamit mooy état du Sénégal def ci teg loxoom indi ci ay ressources ba paré ànd ak ci ay bailleurs ci yenn programme yo xamanteni modi moo di PAVI moo programme euh, ak sécurité alimentaire bi bi nga xamanteni ñu ngi def ak euh, coopération luxembourgeoise ak yenen ni projet yo xamanteni ñu ko lokolo moy PACE bi ak ak euh, ak yenen yenen yo xamanteni dina permettre ñu mëna a jàppale tey entrepreneur u Sénégal yi di wax nak tamit ci suñuy perspective ja DER daf ci jàng leçon yu bare ndax DER jàngat rek la ndax biñ ko tegee ba léegi DER day fexe ba nga xamante ni naka lañuy def ba gën a mun a taxawu askan bi ndax bi ñu nee rapide bi ñëpp xam nañ ni waaxu boobu ñuy xaar ci ñun du waaxu bu ñuy xaar ci entrepreneur bi dañu bugg ni DER fexeel ba entrepreneur bi nga indil ko procédure yu gaaw indil ko yoon boo xamante ni parcours boo xamante ni bu duggee ah li mu ciy ut li mu ciy mbébét dina ko ci gis ñuy rafetlu tamit tey jii waxtaan bi ñu am ak ak ak presse bi ndax lan parce que DER dañu tam di wax DER financement tay ji nak war nañu xamni ni que bu ñu DER dafa am triptyque bo xamanteni mom lañuy woyé formalisation formation ak financement dok ci mëna top té né nañu sax mën nga dugg ci parcours DER génnaat té do am financement ñu taxawul la ci formalisation formalisation moy immatriculation moy jappalé la ci Fra moy jappalé la ci ci mise aux normes qualité hygiène ci lépp bala ñuy mëna a ndax balaa nga né nam ne

Nous avons ni permettre de nous absorber demande pour que ko une demande maîtrisée tamit nous appel à projet la appel à projet li nga xamanteni gox bañ ko soxla la fay dox bu fekkee ni dañu ni sud bi la ñu ni anacarde bi la wala ñu ne mango bi la wala ñu ne ñun ñu xol lo xamanteni moy dox fofu, ñu yemale ko fofu mu ñu ne dañu nekk ci walu mbay mi wala pêche bi ñu xol ni ñi ngi wax ci aquaculture bi wala ñi ngi wax ci lenen mais ñu fexé ba nga demande bi day ciblé suñu bàyyi demande bi di ñew nonu rek ndax lool yépp ay frustration la mais pour mëna top entrepreneur yi jappalé leen ba ñu yegg fi ñu jëm di wax tamit ni que ci 2000 ci 2024 bi tamit ah, amna yu bari yo xamanteni ni tey jii nañ ko fi ay programme yu bess te bu wesso programme yu bess yoyu ñu ngi projeté wu ci centre centre bu mag bi ñuy wax centre d'innovation Mohamed Ben Zayed Center bi nga xamanteni ni ñu ngi kay tabax tey ci état du Sénégal ak lëkkaloom ak émirat euh, euh, émirats ñu ngi kay tabax ci Mermoz bi di ñaan yalla ci 2024 bi mu paré ci jàmm ak ñu gëna mëna taxawu entrepreneuriat bi nak dañu ni DER ensemble la DER dafa wara catalyser écosystème bi dafa wara jappalé jàppale am rayonnement international bi nga xamante am na ko pare mais war na ko gën yaatal